bokk na ci ni ñu musloo jinne ba doo leen gis duñu la lor ngay def gannaaw boo jullee julli farata gu nga wax bismillahi irrahmani irrahim teg ca ahoudu billahi min alsheytaani irrajim teg ca ahoudu bi kalimatillahi taammaati min charri ma xalaq mba nga ne ahodu bi llahi tammati min sharril jinn ci ay jinne yi teg ci rek ayatul kursi yi loolu daal moom ngay saxoo gannaaw julli farata gu ne ak booy bëgg a tëdd ak booy génne ci sa néeg jëm fenn loolu lu ñu la adis ba dane boo dee génn ci sa néeg wax bismillahi tawakkaltu xalallahi laa xawla wala quwwata illa billah ñu la wax nga doy sëkk de yalla dala la gindi fegal la dara la lor seytaani sax bu lu beugé lor du ko man suratul buruj dal des na ko muslo jinne yi ak seeni lor mo xam dang koy bind tak ab téré mo xam dang ko bind ci ndab rahas ko naan kep ko xam ragal na ay jinne mba mu amé ay sey sayagoo rek mu farlu ci di bind suratul buruji tak ba noppi itam nak di bind di raxas di nan su koy bind nak ndab la koy bind